coronavirus um, loo xam ne la feebar boo xam ne la um, e feebar yu virus la comme niñ ko tur bi ooyee boppam um, niñ ko mën a xàmmee nag e su nekkee si nit wala su ne su nekkee si yow mooy ne firnde yoo ko mën a ràññee bokk na si firnde yi nii mooy yaram wu tànga bu jéggi dayo wala saxat saxat bu jéggi dayo wala jafe-jafe nokki yi ñekk nañ ñetti màndarga yoo xam ne ràññee nañ leen lool si ràññee coronavirus waa am na yeneen màndarga yu mel ni ñàkka a e, mun a xeeñtu sa bakken bi wala sa làmmiñ bi e, mu ñàkka a saf dara yooyu tamit bokk si yeneen xeeti màndarga yoo xam ne daf dee wone faral di ñëw si ñoo xam ne e, am nañ coronavirus ñenn ñi sax dinay tax seen cër yi. Euh, mooy seen jooy nii am ñuy métti yooyu tamit daf dee nekk yeneen mandarga yum de mën a wone wala yaram wu métti